Euh, des avocats la défense d'Ousmane Sonko l'air exactement parce que nous avons remettre les points sur les i entre les tirs de Juan et les tirs de Juan. alors Juan Branco a dit depuis six mois peut-être les avocats d'Ousmane Sonko euh, dañ leen ayé li nga xamné mom moy wax mais man suma défé ben calcul moment biñu jappé hmm. Ousmane Sonko ak avocat mi buñu mujjé wax deful li nga xamné mom moy 6 euh, six mois donc loolu je pense que c'est un constat parce que il y a pas très longtemps fall on a vu que Maître Clédor Ciré Ly euh, yëkkati ay cadeau encore une fois di wax sur la situation de Ousmane Sonko. légui nak peut-être que ñun à l'avance nous nous étions pas encore une fois au courant que peut-être ces avocats ñu jël li nga xamné mom moy cadeau hmm. donc je pense que c'est le moment aujourd'hui le pôle d'avocat de Ousmane Sonko commençant peut-être à que euh, euh, ki le moment maître Clé parce que c'est lui qu'on voit actuellement de euh, de plus en plus mouy sur la situation de Ousmane Sonko hmm. donc quand un avocat international prend parole hmm. et fait face à l'opinion publique et aussi ñu gis de l'autre côté il y a réplique ñi nga xam ñom ñoy les concernés c'est-à-dire le pôle d'avocat Ousmane Sonko war nañu yëkëti ay cadeau encore fois pour ñun aussi askan wi ñu xam euh, li nga xam mom moy euh, une clarification euh, donc cadeau yi nga xamni itam mom la ordre des avocats di démentir bokku na ci ki nga xam que modi Ibrahima Ndiénguen mhm. mom nee je suis au courant d'aucune demande adressée au bâtonnier mom nee yegul fenn fo xamni itam bâtonnier yi interdit li nga xam nekk modi les avocats d'Ousmane Sonko pour ñu wax alors euh, ñom tamit japp ne ni les propos de l'avocat français ne nous intéressent pas nee na. <laughs> ki nga xam nekk modi di Juan kaddu yu mu yeki intéressé wu euh loolu la ba bi daal wax ba tay waaye mu daal di japp ni itam euh, dafa préciser et aussi dafa mën dafa dafa xaw mettre lui mettre en demeure li la wax qu'un avocat cité n'osera dire certaines choses publiquement contre le bâtonnier Nien duñ bay ben avocat génn di wax quoi que ce soit li nga xam nekk moo di bi donc euh, dernière phrase bi est-ce que changé exactement wala kon est-ce que nekkul di dëggal li nga xam nekk moo cette thèse d'Ousmane cette thèse bu Juan Branco que ni qu'un avocat cité n'osera dire certaines choses publiques contre le bâtonnier. Ouais, comme on a l'habitude de, le mm. dire, hein, Juan mm. Blanco est une patate chaude. Et que je pense que Taïdi, en dehors de cadre il faut le dire, hein, il a été un acteur euh, très important sur la situation politique. Mmh. un avocat comme Juan, à contexte ça nous yëkëti ay vraiment il peut-être sur la base de faits très lairs diko diko wax xam ne moom peut-être askan wi donc peut-être que man japp naani ça fait un bon moment fallu il faut le dire gisuñu la réaction des avocats de Ousmane Sonko. moy hmm. waral si débat yu bari non effectivement si bir plateau bi en dehors de ñun ak ñeneen sax ci plateau yi ñu hmm. ñi ñu doon wax mais attends fan le cas Ousmane Sonko toll parce que biñ ko ci bicotan yóbbu ko pavillon spécial. ce sont ces avocats mais effectivement effectivement lool motax tax est-ce que tey avocat avocat yi nga xamné hmm. ñom ñi ngi doon wax à l'époque avant avant ñun ñi xam lii aayewuñ leen ba ñoom ñu jël décision pour informer li nga xam la communauté donc lool motax mané le c'est un débat qui suscite de de de nombreux points d'interrogation légui nak réponse bi du yow ya koy indi du man maa koy indi xam nga kan koy indi hmm. le pôle d'avocats bi nga xam tay ji ils ont la compétence et l'habilité encore une fois à donner une réponse claire et nette encore une fois concernant situation bini ni nun nak duñ ci mën prononcer wu pour pour pour mën aussi ci bi mais luñu ñu mën a la effectivement et la parce que ce matin matinal effectivement mhm. ah, par la suite le bâtonnier là aussi nous pour que peut être une suite de l'information exactement les réactions donc nous aussi réaction pour les avocats de ce cest effectivement la défense mhm.

non peut-être que si gamme bi sax mom lañu ñu gis ne que mu yëkkatiwaat ay cadeau di wax sur la situation de Ousmane Sonko mais concernant son état de santé ak condition yi nga xamné mom la nekkee en dehors du docteur Babacar Niang avocat Ousmane Sonko nous avons ñoo les informations nécessaires donc nous aussi nous nañu apporter li nga xamné commentaire mais je pense que la dernière réponse revient encore une fois au pôle d'avocat de Ousmane Sonko à qui peut-être aujourd'hui je pense que euh, débat est ni si ñom la gëna posé wu alors si vous la gëna poser posé euh, peut-être pour nous la war mhm. donc mi ngi na numéro téléphone c'est au 76 531 28 01 accéder à l'antenne joxe seen xalaat par rapport ak tolluwaay ak li nga xam ne rek mooy dund askan wi donc ñu si woon euh, si euh, pàcc bu am solo. daal di hmm. poser un peu li nga xam ne que moo di ce débat bi nga xam ne itam depuis ce matin mi ngi daal di li nga xam ne que moo di la chronique par rapport. ak li nga xam ne moo di les avocats d'Ousmane Sonko qui sont interdits euh, justement selon Juan de parler publiquement mais en tout cas le bâtonnier mu koy daal di weddi alors aujourd'hui nous sommes en train de xam ne moo euh, tribunaux yi DGE euh, direction générale des élections du euh, FATLI et que vous ba nous ñu est-ce que les est habilité peut-être pour d'aller déterminer officialiser valider qui que ce soit sa candidature exactement. la DGE n'a pas l'attribut hmm. et la prérogative pour wax diw mooy et ak diw moodul bokk. Hmm. Fallou la DGE n'a pas la prérogative et l'attribut pour voir qui moy bok ak est modul cette compétence là revient au conseil constitutionnel Moi, la fois dernière je, t'avais fait un départage mm. en te disant qu'aujourd'hui le conseil constitutionnel fait sur c'est-à-dire il peut s'exprimer sur li nga politique et surtout sur li nga droit motax si le conseil constitutionnel fait de la haute politique wax li nga xam droit dara Ousmane Sonko mu sur les échéances de 2024 li wax hmm. et aujourd'hui je pense que soo dégluwee des juristes comme le sieur Sow des juristes comme le euh, sieur Dia ñooñu à les entendre parler da ngay que droit lañuy wax et il ne parle que du droit et que ñom à travers cadre yi nga xam ñing koy yëkëti do am prise de parti wala li nga de mom moy prise de position parce que droit rek mon lañuy wax li droit bi di wax mom lañuy waxat textuellement légui nak mo wax le benn mbir dañ toll ci jamono jo xam encore une fois lu d'un dañ nek dans un contexte mm. Euh, mm. on est dans un contexte wa Fall dafa mel ni am ku nek ci ligne alors de sans plus tarder au 76 mm-hmm. au 76 alors salaamaaleykum seigne bi ñu lay. nuyu di la bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi. maa ngi ci émission maa ngi en direct ah. yaa ngi en direct kay. non xam nga gars yi li ñu coow nii yëpp jarul coow. Hmm. affaire politique ok. xam nga tax jarul coow. Hmm. waa affaire xam nañu def ci Sénégal xam nañu def ci Sénégal yëpp. ok xam ne day dem ci ab def bu mu dem. tëj na fa seen jërbaar wala seen set wala hmm. seen maam wala seen papa. wala seen yaay. tontu bàyyi noonu nañu tey seen carte jarul coow jarul débat ñoom lu ñu def xam nañ ko. voilà euh, mais jamono alors euh, mais jamono ji. dégg nga dégg ma dégg ma allez-y hmm? ñoom lu ñu def Sénégal xam nañ ko gis nga Macky Sall. Hmm. soxorut xam nga ñaan nga soxor. ñu nekk ci ginnaawam. Hmm. parce que yàlla du jox nit mu jiite ay nit soxolam rafetul yàlla def ko yàlla doomu aadama. képp koo xam ne joxal leen dëgg na ko ndomba tànk rek wala mu jox kaddu ñëpp di ko déglu rek te koo seet ba seet xam ne kii am na yërmande doomu aadama yi. Mm. mais biñ naan kon Macky ak Macky rek ak njabootam problème du am te ministre ñoo baaxul na ñu waxante dëgg yow doo déglu nu ko ci débat bi naan ministre bi liggéey na wala député bi liggéey na xam nga li ñuy wax Macky liggéey na kon Macky li doy ministre ah. gis nga affaire kañ la yàqu bu ñu fexe ba gën Cissé Lo Moustapha Cissé Lo boobu la affaire yàqu ndax Cissé Lo moo doon wax dëgg moo doon taxaw assemblée jàkkaarloo Macky Sall wax ko li nga xam ne moom la ministre yi def xam nga nee na ministre yi su Macky Sall xam li ministre yi def jettam la yor di dóor ministre yi xam ne da xew parce que loolu nekkul taalibe mënoo doon sëriñam Macky Sall de xam nga Moustapha Cissé Lo daa nekk taalibe affaire nekk sëriñu affaire ok li nga Sénégal li nga Sénégal suñu toll nii suñu jëloon ku mel ni Cissé Lo Serigne Mbacké Ndiaye yu PDS ñoo def doy nañu góor nag. Mm. ànd ak Macky Sall Sénégal day dem kanam. Mm. ñi dee jëm seen intérêt seen intérêt la ñu doxal. Mm. xoolal Macky Sall ko. ok moo lay wan ne moo lay wan nit ci ginnaawam toppuñu defuñu fi Sénégal dañu nekk ngir seen intérêt. ndax nekkoon dañuy gis Macky Sall Macky Sall su leen ko mais bu ñu indi nga xam ne dañuy éliminé député yi dañuy bañ te duñ ko wote. kon boobu la war a xam boppam boobu la war a xam boppam ñi ànd ak moom ngir liggéey dañu ànd ak moom ngir intérêt ak seen i poste. ok comprendre nga man dama persévéré mais dama yàgg Macky Sall soxoru dañuy ci ginnaaw ñoo soxor ñoo soxor duñ ko duñ wax dëgg. am na solo ko mere mooy dafa nekk taalibe Sénégal war naa doon sëriñu Sénégal tax Macky Sall ci góor la juddoo fi la yaroo fi la mage. am na solo bu baax xam nañ jublan yi xam nañ jublan yi xam nañ ñuy baax xam nañ ñuy bon. kenn waru ko obliger mu jëlaat ne mbal bi xam ne ñu koy yàqal waroon na compagne daa waroon nommé ñoo xam ne ay moromam lañu su bëggee loo xam ne nekk noonu ñu ne ko président bul def noonu bul def noonu mm. merci beaucoup sëñ na ko sëñ bi maa ngi di déglu jërëjëf bu baax a baax maa ngi wootee Diourbel Diourbel tur bi naka la

candidature nit eggagul fa nga xam ne itam mooy conseil constitutionnel. waaw loolu laa doon wax ah la DGE amul prérogative ak attribut pour wax diw mooy bokk ak euh, diw moo dul bokk. Hmm. la DGE ne doit pas passer par outre li nga xam ne ses compétences la dernière décision revient au conseil constitutionnel qui s'exprime sur ñi war a bokk ak ñi nga xam ne euh, ñoo warul ngi la koy wax aujourd'hui je pense que aussi la DGE ne doit que transmettre ce qu'on lui amène maanaam mooy mbirum parrainage yooyu noonu yep tey amna ko na mom xam ne la ko jox mm, mm. donc encore une fois fallu le problème bi nga xam ne ñi ko doon soulever tey sénégalais yi ñi ngi ñi ngi xam exactement fan la taxawé parce que candidature Ousmane Sonko depuis biñu wax né que dindi nañu li nga xam mom moy parti bi wax aussi que Ousmane Sonko a été radié des listes y avait des points d'interrogation yo xam ne ñi ngi ko doon soulever mm. motax sank je t'ai donné des exemples sur yenn juristes yi nga xam ne ñi ngi doon yëkkati ay cadeau di wax sur sa sur sa situation du point de vue administratif encore une fois Ousmane Sonko ne peut pas être radié des listes. Hmm. les nag Ousmane Sonko soo que dindi si euh, liste yi fallu, il faut un acte purement judiciaire. Hmm. et que je pense que euh, loolu noonu habilité bi xam hmm. le conseil constitutionnel. donc looloo tax sànq si le conseil constitutionnel def li nga de la haute politique ak du droit dara mënul tere Ousmane Sonko mu sur les élections de 2024 et man selon ma perspective ak aujourd'hui position bi nga xam ne moom laa nekkee. dama que élection 2024 Inshallah allahu une suñ fa Ousmane Sonko dina nekk candidat pour les hmm. élections. Parce qu'aujourd'hui, un nouveau pas vers la démocratie, ça commence par la libération de, de des détenus politiques. Nous savons par erreur, ou peut-être nous savons silangum politique à travers des manifestations pacifiques, mais nous avons nous délouat sen bir qui ki nga xamné aujourd'hui ñu bari yaakar nañ nek euh, mom moy cristalliser l'espoir de toute cette jeunesse là encore une fois hmm. à travers les sondages et les analyses yi nga xamné euh, mom lañu def koku dafa wara beaucoup sur des élections transparentes hmm. donc je pense que actuellement, encore une fois, l'État doit revenir sur les pas de la bonne gouvernance et qu'aujourd'hui, je pense que la sérénité et la stabilité, pour que le problème, vraiment, nous légui nak Il y a autre chose. Aujourd'hui, je pense que Jafé Jafé, askan wi ñing koy euh, ñing koy euh, jankontel on n'en parle pas rentrée des scolaires bi école yi école yi mm. faire fourniture scolaire yi parents ñi ngi daw matin midi soir sank amna ben benn sama morom la fallu hmm. daf ma yone message mané ko mais man à un moment donné je ne t'avais pas vu fan nga Mon mune ma Mamour à un moment donné j'étais pas à Dakar dama demoon ci deuk àll mané ko mais lan mo la fay yóbbu won hmm. parce que y a une fii yaa ngi doon liggéey mu ma Mamour dafa am famille bo xamné dañ may xaar mané ko comme nan mune ma j'étais allé dans la brousse pour me préparer à prendre la pirogue hmm. ma ne ko ah. ban pirogue mu ne ma Mamour jël naa gaal mais dañu dem ba si biir géej ñun fa la ñu réeree moo tax ñu dëppaat encore une fois mu ne ma s'il te dama bëgg ngeen invité ma ci un plateau ma wax exactement la réalité sur l'immigration clandestine mm, et pourtant que suñu morom la mm. maa ngi koy saluer au passage et vous je pense que aujourd'hui intervention mm. dina am solo trop sur l'actualité politique li mo wara nek que le débat ay xalé yu ndaw encore une fois tek mi ngi won fi di daan dooleem nek sur euh, aujourd'hui moy di di daan dooleem fii si koñi mais tellement que le pays va mal la cherté de la vie ak charge yi nga xamné mi ngi pesé wu si kawam mom moko waral tey peut-être à prendre li nga xamné mom moy la voie clandestine donc je pense que les questions de l'heure comme tu as l'habitude de le dire dafa wara nek li nga xamné mom moy le débat mm. tout ne doit pas être de la politique au moment où il y a des personnes yo xamné ne taluñu ludul taluñu politique amna ño xamné encore une fois ndekki agn reer mom mo len soxal aujourd'hui ñi ngi wax nek que essence bi cher na y a des personnes yo xamné ne yor nañu auto pour ñu dem liggéey ils ont besoin de carburant pour se déplacer va dans la banlieue regarde les problèmes yi nga xam ne Dakar ce n'est pas seulement le Sénégal il y a la région il y a les sous-régions ak peut-être localités yi nga aujourd'hui nous avons des problèmes d'électricité y a des localités yoo xam man bërki démb maa ngi émission un habitant ñun de ñu ngi fii mais plus de 6 mois pour nous amener, c'est tout un problème hmm. si dëkk boo xam ne ñu a le wax y que le pétrole gaz si dëkk boo xam ne que le Sénégal est en voie de développement mais ça cause beaucoup de problèmes il y a des rapports yoo xam ne on avait mis dañu jël Sénégal tel que ci suis position en position, nous ñu d'accord regarde ce qu'on a écrit dans le rapport de Mo Ibrahim mm. concernant la bonne gouvernance mm. est-ce que nous waat posé poser des problèmes concernant peut-être si moment yi nga si problème si si facteurs yi nga mais nous avons dellu ginnaaw aller dans la réflexion essayer d'apporter des solutions fi nga xamné nak Sénégal mi ngi fay góorgóorlu fàllu mais si moment yoy non dañ fa wara appuyer pour tey peut-être ñu tek un pas bi nga xamné ne dina jëwale réew li kanam légui nak le malheur moy xam nga lan dañ jël lépp politiser ko dañ nekkoon ci jamono jo xamné fallu à travers peut-être les outils de communication ce n'était pas trop accessible motax mané à l'époque aujourd'hui nos autorités étatiques ils mesaient ils ils mettaient la pression sur cette population mais tey ji ak l'accessibilité de l'information ak les outils informatiques ak les plateformes de de de de de de communication m'ont permettre aujourd'hui cette population là encore une fois ñu à la recherche de l'information am ay solution mo lay waral tay ji ken mënatul nax population ken mënatul nax instant bi ni sénégalais regarde ce qui s'est passé dans les élections